seen kaso moom Branco nag nettali li askan wi di dund ci kaso yi nekk Sénégal rawatina ci rëbës yi nga xamante ne fa la ñu ko dencoon Branco lu mu dencaloon état bu Sénégal yépp le témoin yéen kaay di ñu yëgal ni démb la ko daal di bécc ci kanamu àdduna nga ñëpp condition yi nga xamante ne moom lañ ko tegee loxo naka noonee kiliyaanam di Ousmane Sonko waaye fësal lool situation yu métti yi nga xamante ne ñu ñu denc ci kaso bu rëbës ñu ngi koy dund mu mel ni kon moom Branco ci boppam dafa doon fayantu ni ki démb fayu dee moo gën a métti moo tax démb Branco wane boppam ci biir yéenekaay bi di l'info moom avocat bi ngàññi na anam yi nga xamante ne moom lañ ko tegee loxo nga xamante ne daanaka dëppoo ñu ak ak ak yelleefam waaye Branco nee na li tax mu génn mooy xëy na pression bi ak mobilisation bi nga xamante ne lépp def nañ ko ci ngir mu bañ a yàgg ci loxol nguurub Sénégal waaye ba tey ci l'info maître Branco di xam ne ni kon moo jëloon dogal ñëw Sénégal te xamoon na lépp li nga xamante ne mën na ko ci fekk avocat bi wax na li fekk Ousmane Sonko ci kaso gi mu nekk Vox Populi dikkaat na ak na ak kàddug avocat français bi di xam ne ni kon Sonko ci boppam jamono ji woppi insuffisance rénale moo ko jàpp gannaaw grèwu xiifal bi nga xamante ne ci la nekkee boob ak léegi li Juan Branco wax moom la naataangoom sénégalais bi di Clédor Ly daa di xamle source a di xam ne ni avocat bi ci boppam demb daanaka bulletin de santé bu Ousmane Sonko la daa di becc ci kanamu askan wi maître Clédor Ly ci biir yéenekaay bi di Le Quotidien mel ni kuy weddi Ismaïla Madior Fall mi waxoon ni Ousmane Sonko dara jotu ko te bàyyi na lii di xiifal bi la wàllu gën a ay grève de la faim bi nag moo ko yóbbee wërgu-yaram bu tàgga témbe bu ñu sukkandekoo ci yéenekaay bii di yor yor yokk ci ni kon Sonko ci boppam jamono ji daanaka ñu bëri la jaaxal moo tax lu mooy ay awakaawam réew mi quotidien di ñu xamal ni waa yeewi askan wi ci seen wàllu bopp yi tamit sàkku nañu ci njiital pastef bi mu daal di dakkal gréewu xiifal gi li am ba am mooy Ousmane Sonko ci boppam ba léegi mu ngi ci kër docteur bu ñu sukkandekoo ci L'As quotidien ki ko sekkaloon ci xeexub coowal Sweet Beauté Quotidien moo ñuy xamal ni Adji Sarr jaaxaloon na bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoo nekk ci état bi ndax ni ki démb lu tollu ci ay waxtu dafa jékki-jékki réer may ndax moom njagamaar bi ci boppam mel ni ku taay ci li ñu koy denc mu mel ni amul sax dund bi mu moomal boppam moo tax démb mu daal di xëy yaxosu laataa ñu koy gis ci ngoon gi ci ay mbokkam ñi ay mbokkam gis ni ki démb mooy Pape Alé ak kii di Cheikh Bara Ndiaye Vox Populi naka nu ne l'observateur du ñu xamal ni kon démb mujj nañoo am ab nëgandiku ca jamono joje ñu yëgal ni atekat bi ni ki démb lu toll ci juróom-ñeenti mandat de dépôt la jegleel ñenn ci ay militants yu Pastef waaye ca jamono jooje meerub Sangalkam mi ñu jàppoon ni kon bàyyi nañ ko ba noppi teewul boob ak léegi kon mu ngi ci loxol yoon ci biir yeewi askan wi lépp dina leer ci fan yi ñu dëgmal le mandat moo ci def ab taxaw seetlu jàpp ni situation bi ne mu mel ak taxawaay bi nga xamante ne mën nañ koo gis ci leader yi ci seen wàllu bopp ndax mbaay bi amoon ci seen biir daanaka léegi mu jeex ndax ku nekk dina topp léegi ay bëgg-bëggam dellusiwaat ci réewub Sénégal l'observateur di jàngat dellu sib Karim Wade goge ci biir réew mi ak li mu mun a jur lan moo ci ay ngëneelam ak ci diggante bi dëgg lan la ñàkk ci biir réew mi Karim Wade ak Khalifa Sall ñàkkoon ba noppi di jéem a dabu waaye seen mbir moom ba léegi dara leeragul ngir élection présidentielle 2024 bi li ko waral Sud Quotidien di ñu xamal ni ba léegi ñoom ñaar ñëpp fayaguñu li nga xamante ne mooy ndàmpaay yi ñu leen daanoon moo tax ñaari kaay ba tey ñu ngi ci sursis ñi nekk kay ci sursis ñu ngi ci biir enquête yéene kay bëgg doon candidat ci coalition benn Bokk Yaakaar te ba léegi ñoom ak njiitu réew mi Macky Sall mu mel ni ci ab pow nëbatu la ñu nekk li gën a jaaxal kay waa enquête moo di waxtu waa ngay dem parrainage bi ñu war cee soobu te ba léegi njiitu mi ci boppam waxagul ana kan moo ciy doon candidat lu ñu tegoon sax ni ay charte ba léegi àndaguñ ci moo tax yéenekaay bi di sampa laaj ndaxam njiitu réew mi Macky Sall dafa na xaar ba yëf naan këtt ne jonn ngir mu mën a tànn ana kan mooy nekk candidat bu bennoo ndax ba léegi dara leeragul li leer mu ngi ci biir le témoin ak libération moo di ñetti ndaw yi nga xamante ne ñoo faatu ci manifestation ci Sikicoor autopsie bi li mu xamal mooy ay bal fetal ñoo leen faat lool ak li nga xamante ne moom la kilifa yi wax kon kilifay Touba di waajal màggal bi réew mi quotidien dikkaat ci li nga xamante ne moom la ñu jëlee ci CRD bi doon xew ni ki démb sëñ Bass Abdoul Khadre teewee ko ànd ci ak jëwriñ ju ñu dénk kaaraange bi réew mi wax nañu nag ci lu jëm ci jafe-jafe yi gën a jàmp waaye ngën a li ak chiffre yi nga xamante ne mooy tukkee ci màggal bi at mu yàlla sàkk ñu ci jël tamit ni ay matukaay toll na ci ñeenti junni policier ñaari junni ak genn wàlla ci ay sandarme lu toll ci juróomi téeméer taskatu xibaar tamit ñu ngi leen di xaar foofee ca diwaanub Touba Touba lu muy sàkku jamono ji les échos dañu xamal ni kon mooy ñu daal di leen beral loxo ci lu jëm ci wàllu fayub ndox càkkuteef boobee Antoine Félix jom indi ci tontu moom jëwriñ ju ñu dénk kaaraange biir réew mi di xam ne ni loolu fi ak ci kanam war nañ ko mën a waxtaanee la tribune waxtaanee fi réewub Sénégal toll ci li nga xamante ne moo jëm ci njaayub carburant yéene kaay groupe di média di xam ne ni kon Sénégal bokk na ci ñetti réew yi nekk ci dendub Afrique yi nga xamante ne fala essence ci boppam gën a cher ndax fi njëgu litre bi ñaari téeméer la daanaka romb lool li nga xamante ne moom la nemmeeku ci yeneen dëkk yi ci àdduna dëkk bii di Nigéria fala njiitu réew mi ji solo yéen kaay dañu xamal ni kon moom Macky Sall bawoon na daar daar ci Arabie Saoudite gi mu nekkoon ngir wutali Abuja war faa teewee ndaje bi CEDEAO war a amal war a addu ci seen taxawaay jëm ci Niger Noa Fadiga jóge Brest ci France jëm ca Belgique réew mi sport dañu xamal ni moom doomu Khalilou Fadiga bi nga xamante ne kon ay jafe-jafe la amee woon ci wàllu wërgu-yaramam ba France gi mu nekkoon ñu daal di retiré licence ci boppam mu nekkoon ci ay jafe-jafe na am ab club démb la daal di xaatim contrat bu yees ak club bi di la Gantoise yaakaar juddeeti na ci Noah Fadiga ñu yor yaakaaru Sénégal ren ji ci Ligue 1 France ñu ngi ci xët bu njëkk Stade Quotidien muy Habib Diallo Ilimane Ndiaye Bamba Dieng ak Ismaïla Sarr ñoom ñëpp war a mën a wane seen bopp ci saison bu ren ji ki fas yéene wane boppam ci wàllub làmb Ama Baldé lay wuyoo suñu lamb gis ni doomu Falaye Baldé bi mu ngi ci tànku Balla Gaye numéro 2 mi nga xamante ne doomu ancien lutteur la bu yootu roi des arènes. Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may